ñu ngi yolleeku ñëw wuy sama ñu ngi yolleeku ñu ngi yolleeku ñu ngi yolleeku ñu ngi yolleeku ñu ngi yolleeku ñu ngi yolleeku ñu ngi yolleeku ñu ngi yolleeku ñu ngi yolleeku sa morom def ko ñoo jàpp booy di leen di maa tey ñi ngi ay ay ay ay eh, dimbali ñu waay bu ñu tiire booy yi doo leen yërëm ñi ngi yolleeku boo yaa leen di bëgg rey wuy sama ndey ñi ngi yolleeku lacrymogène daw leen wuy oto jàmbur ñii dañoo lijjanti lacrymogène ñi ngi daw ñi ngi daw ñi What